Siweul.net seen site internet bi ngeen taamu mooy am mbégte ci di leen jox xibaar yu wér te woo. am nañ ci mbetteel am nañ ci aussi déception. deful lu dul defaat ñu choc comme la première fois bi mu njëkkee wax ne la kat nañu dellu. njàqare ak xol bu jeex lañu amee ñoom jàngalekat ak ndongo daaro ginnaaw ba nga xamee ne nguurug senegal dàqaat na. ubbite école yi nga xam ne moom la waroon a amal ci ñaari fan ci weeru juin bu ñu sukkandikoo nag ci jàngalekat bi te nekk ci privé bi di ñu xamal ne bépp wàccaay boo xam ne defoon nañ ko jëmale ko ci ñaari fan ci weeru juin gi dafa mujjee tàbbi géej. ndax boo leen xoolee euh, état am na ay euh, note de service yu mu envoyé woon note comme quoi que nii euh, y a des activités à respecter du ci mel ne ay distanciation. lu ci mel ne aussi euh, matériel bi nga xamante war nañ koo utiliser ci école yi pour mën a xeex mbas bu dugg ci école yi ba du euh, wàllu élèves yi du wàllu jàngalekat yi te loolu it euh, ni mu ko waxee woon ñun école yi nga xamante ni ñu ngi ci privé comme public noonu la ñu jëlee woon suñu matukaay ba mat sëkk ñu xëy ba ay mën naa ne ay vingt trois am na enseignant yoo xamante ne bi ñu xëyee ñëw nañu école parce que yëguñu ko woon loolu vraiment boo ko déggee da ci am mbetteel da nga ci am vraiment déception aussi lu nu mel la nu jëlee ci ñi nga xam ne ñoo di donga daaro yi te waroon na nag dooraat seenum njàng ci ñaari fan ci weeru bi nu génn ñoom ñooñu nag amoon yaakaar lool ngir mën a eggale seenum njàng ba mën a def seeni examen. parce que tamit ñun ñëpp dañ si kontaanoon pour réviser suñuy leçon gën a yokk suñu niveau ñu ne le 4 boobu kii nañ ko le 2 ñun tamit ñu daal ne yàlla baax na nañ continuer waat di def comme d'habitude ñu ñëwaat tamit amaat yaakaar ni suñu jàng bi dina mel nam laan mel ñu ñëwaat tamit. dernier moment Macky ci lu jëm ci sauver année scolaire bi bu ñu sukkandikoo ci jàngalekat bi mu ñuy xamal ne du lu mën a nekk ndax nag jàpp na ne ba tey ji élèves yi heure yi ñu waroon a jàng matale guñ ko. xam nga def examen moom dafa yomb parce que boo xoolee examen boo koy def da ngay joxe exercice da ngay évaluer élèves bi ci euh, étape bi mu toll te loolu euh, dan na loo xamante ni c'est pas du tout difficile c'est pas du tout difficile mais ce qui est difficile mooy le fait nga defal e-, élève bi examen ba pare moo xam élève bu cm moo xam élève bu troisième moo xam élève terminal la mu pare jàll ci classe suivante ba pare ànd ak niveau loolu moom moo jafe te boo xoolee moment yi ñu toll nii mënuñu am année boo xam ne année bu valide la parce que pour que ne euh, puisse être validée il va falloir que vraiment enseignants yi jàngale seen quantum scolaire seen quantum horaire ba mat sëkk te comme yàlla dogal na ñun di ñu jàng premier semestre lañ defagul deuxième semestre presque defaguñ ci dara kon am na ay jours yu bëri yoo xam ne retard nañ ko am na heure yu yoo xam ne ni mënuñu ko mënuñu koo dellawaat bu dee nag ñi nga xam ne ñoo di élèves yi nekk ci classe d'examen ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo di ay ndongo daaro tiit nañ lool ci seen ëllëg ah man de man je crois pas que buñ ko sauvé ko instant bi amatul benn sens parce que nag buñ ko sauvé daan ne ñiy def imaginer ñi nga xamante ni defuñu woon examen nekkuñu classe d' examen ñoom ñuy ëpp chance ñi nga xamante ñoo nekkoon classe d' examen te en plus tamit ñooñu buñ passé ñëw fekk si ñu du baax bu boobaa kii bi niveau bi dina gën a catastrophe comme d' habitude rek. nguurug Sénégal jëloon ndogal ngir ubbiwaat école yi ñaari fan ci weeru juin bii nu génn loolu nag yitteeloon ndongo daara yi nga xam ne ñoo nekk ci classe d'examen te ca pandaw ga nag ñu mujj ko dàq ngir ay enseignants yoo xam ne dañoo amee jàngoroy coronavirus ba tey ji nag ñi ngi xaar ndogal li nga xam ne nguur gi dina ko jël jëmale ko ci école sénégalaise. Siweul.net internet bi ngeen taamu mooy am mbégte ci di leen jox xibaar yu wér woo